mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi wéy di tàbbal seen loxo ci ndimbal li nga xam ne nii jagleel nan ko ñi laru ci mbënd mi ci dëkk bu tedd bi di Touba jaarale ko ci kuréel gi di junnatun li man nazamaho ci dimanche gi nag mbooloo mu takk bàyyi ci ay gox yu fasantikoo ñoo ñëw nag fii ci résidence Xaadim Rasoul fekk si ci kuréel gi nga xam ne nii Cheikh Muntaxa moo ko fi samp ngir ñu saytu liggéey bu am solo boo bilee bokk na ci ñooñu nag daayira Rama Masiri bàyyee ko ca njaareem ñëw nañ nag tey jii indi seen barkelu jëmale ko ci wooteeb Cheikh Mouhamadul Muntaxa bile kuréel gii nag day kuréelu Raamu Masiri ilaa Jurbel nga xam ne dañuy taxawu dikkub Cheikhul Xaddim njaareem ànd koog waa njaareem gépp bi bi ñu ñëw nag tey di ziyaare ji Serigne Muntaxa Cheikhul Xaddim ñu ni nag dañuy ñëw indiwaale suñu participation ci liggéey bii nga xam ni sëriñ bi moo ko jiite ba pare woo ci taalibe yëpp woo ci jullit yëpp loolu nag eh, ñoo ngi koy lancé suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk njaareem te yor fa ay kuréel bari lool macha allah kenn ku ci nekk bañ a xeeb la nga yor mu tuut ak mu bari nga ñëw ci liggéeyu Cheikhul Khadim bi kuréel Junatun liman nazamahu ci turu Serigne Youssou Diop yëkkati ay kàddooy cant jëmale ko ñi nga xam ne ni tey ji ñoo bàyyeekoo njaarim indi seen addiya ci biir liggéey bi lee jërëjëf waa kuréelu kuréelu Raabo Massir yi yéen ñëpp muy góor ñi muy soxna yi euh, di leen sant ci turu Junnetun euh, recevoir ci bureau bi fii toog sëñ Babacar Mbacke bi nga xam ne moom moo jiite côté finance bi ci wàllu espèce di liggéeyandoog ñeneen ñoo xam ne ñoo yor magasin yeeg leneen kon maa ngi koy teg ci loxoom euh, li nga xam ne mooy addiyee jigéen indi muy loo xam ne pas-pas rek lay teg tekki ak fas yéene ànd ak ñun liggéey bi euh, kon ñu ngi koy nangu ci loxo yi sëriñ bi moom Cheikh Mamadou Mountakha euh, li mu li mu lépp lu lu sëñ Tuubaa dëgale ci addiyee rek yàlla na leen ci fekk moom ndax nee na waxuma la njëriñu addiyee waaye dafa ne bokk na ci njëriñu addiyee fu dara nekkul mu def fa dara fu lu néew nekkoon mu baril ko fu lu bari nekkoon mu barkeel ko loolu nee na te loolu mooy li ci gën a néew kon defe naa sëñ Tuubaa moom liggéeyal ko bénéfice rek la euh, ndax fii ci àdduna lay tàmbalee fay waxatuma la ak fa la ñu jëm nga xam ne ñëpp fa soxla woon ndimbal kon jërë ngeen jëf ci turu kuréel bi incha allah dinañ leen ko tàbbalal ci biir liggéey bi ñi ko war a jëriñoo mën cee jëriñoo jërë ngeen jëf. gannaaw Rama Massiri kuréel gi daayire bi nga xam ne ni dañoo lëkkale ñenn ci ñi yëngu ci wàllum yoon di ay avocat ñoom itam délégation bu takku lañ def ñëw fii ci kër Serigne Touba gi indi seen addiya teg ko ci yoxooy junnatun li man nazamaho ndakaaru nag lañ jóge def suñ délégation tey ci suba xëy si fii ci dëkk bu tedd bi li doon sunu tànk tey ñëw bokk ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Touba woote pour dimbalee nit ñi ñu jóg ci mbënn mi parce que yëf yi doy na waar mu néew mu bëri waaye yéene bi sax ëpp na li ñu indi. kuréel goo xam ne ni ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké la daal di sosoo seenub liggéey du lenn lu dut fexe ba ñi nga xam ne dañoo am ay gàllankoor te mu bàyyeekoo ci mbënn mi ñu mën leen a taxawu ci ay anam yu fasantikoo donte jéggi nañ ay jéego yu am solo terewul benn yoon nag ñuy gën a soññ mboolem jullit yi ak taalibe yi bëgg-bëggub cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke muy taxawu ñi loru ci wàllu mbënd mi ñu daldi koy def ci anam yu mucc ayib wa jannatan li saalikin muridi